auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ah monsieur le ministre Karawaay maa ngi lay nuyu ak ministre finance maa ngi lay nuyu di nuyu sama mbokk député yi di leen balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla ñu teewe fi déen te kenn bañ a manqué te it xam ni ñoo bokk loo ñoo bokk lépp loo xam ni mënuñu koo séddoo kon jaboot jàmm rek tey mbokkam ndax nit ñi kenn ku ne fu nga jóge mën ngaa dund ba àddina tukki te kenn du xam sa morom kon yàllaa na boole nanu yéenante jàmm yéen nan ñun ñëpp nañ yéenante jàmm te xam ni jàmm moo baax cim réew di wax euh, monsieur le ministre nag karawaay ak finance maa ngi leen di nuyu di leen yéen xam ni place bi ñu leen teg méritoo ngeen ko ndax fii kat lu ne xam lu ne xew na lu xew na fi lu ne wax nañ ko fi waaye seen toogaay bi ngeen toog bu jekk bi fa tubaarakàllaa macha allah boole ko yar yar seeni wax lu jafe ngeen def du ngeen tontu du ngeen sëqat du ngeen def leen yéen a ngi ci leen fi indi rek njaboote ñépp waaw doon paaka ñaari boor kon yal na leen yàlla yàggal ci suñu kanam yàggal leen ci seen liggéey la ca des nag bi ma sama gàmmu bi it maa ngi koy gë maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm li ñu def euh, monsieur le ministre travail ak finance xam nga man de département Bambey sàpp na leen ba ñëpp département Bambey lañ may wooy li ma fi wax lépp pour département Bambey gafaka yii ñu natt yàlla bu leen ci kenn ëppale te na ngeen defar defaral waa département Bambey ba mu baax ndax ci àll bi la ñu nekk te àll bi amuñu ay moyen kon nag jàppale leen waa àll bi bu ma paree ci loolu ku nekk ñu yëkkati loxo ay de saw jaawaro dégg naa li nga wax honorable député ku ne yëkkati sa loxo di wax sa candidat candidat yi bari na lool waaye góor ñi ah, góor ñi bu ñu xëccoog jigéen ñi ginnaaw góor ñi moom kenn ku nekk ngi def nii di def nii di def nii léegi bàyyi leen lépp seenu jigéen rek ñu defar ba mu baax jigéen mooy yaay jigéen du xeex jigéen du xulóog jigéen du def leen waaw ginnaaw nag góor jigéen gi leen di góor gu nekk ngi yetta yettati mbaggam waa ji yéen mun ma xaa jiital leen seenub jigéen ah teg ko ci seen kanam waaw jàmm ci jekk jàmm ci mëgg ñu defar réew mi Sénégal jëm kanam loolu daal laa leen wax loolu mu wax la ndax jigéen jooju ma leen di wax merci maa ci xam dara jigéen ju gore merci ah, ay ca